Good morning. Welcome to Sahel Network TV. We're here with the morning show today, and I'm here with my lovely co-host Antoinette and Modu Top. How are you guys doing? Top? Doing good. You're doing Nakasa heartbreak. <laughs> Don't worry. That was a joke. <laughs> All right, Top. Lalo you see boppi Kibari, please ci Wolof. waaw ñu leen amal fii nii boppi xibaar Sahel Network TV ci sunu morning show bi boppi xibaar yi ku ñu xamee ci Oremi de dafa bañ a wax i kaddu gannaaw bu ko tànnee ñu ko mu nekk ci député chairman bi. Banjul City Council mayor bi Rohey Malick Lowe moom de yeddana président bi Adama Barrow mu ne mu jël i jéego naka la ñoo defee ba ñu yokk pooti Banjul bi ku ñu xamee si Mama Kandeh opposition leader GDC moom de tamit yeddana IEC bi mu ne nagaay moytu bu def loo xamante ne dina indi i jafe-jafe yoo xamante ne dinañ ko am si 2021 élection bii nii. ku ñu xamee si ex ambassadeur Malaysia bi moo nekk ambassadeur Diab moom de moom tamit yedda na président bi mu ne na wax i kaddu yoo xamante ne dina jëmee si Fatoumatta Jawara ku nekk député boo xamante ne mu ngi si National Assembly bi si commune yoo xamante ne ñu mu ngi ko def si Facebook bi ak social media bi loo xamante ne ñu ne doy na waa trop. Adama Barrow muy président Nairobi moom de tamit tuumal naa media houses yi loo xamante ñoo xamante ne joxekati xibaar li ko waral si télévision yi ba si radio yi mu ne gars yi gars ñu ngi joxe xibaar yoo xamante ne jaarul benn yoon xibaar yoo xamante ne nekkul loo xamante ne lu déggu lii de standard news bi fa ñoo ko joxe. xibaar yi leen amul fii nii si kàllaama wolof ma bàyyi suma naataangoo yi ñu dugg si biir waxtaan bi si morning show bi. Thank you very much for It's the GNPC December Bonanza. December Bonanza. GNPC's massive December Bonanza gives you a massive discount of two delices on pump price, diesel, and petrol across all stations from the 15th of December to the 15th of January. Anytime you buy diesel or petrol, you will be getting a two delicacy discount per liter. Two delicacy discount per liter on your purchase, which means the more you buy, the more you save. And the more you save, the more you get in your fuel tank. GNPC's December Bonanza, giving you that quality fuel at a discounted price. Get to any GNPC station and enjoy your massive December Bonanza discount. Salam. Yeah. Enda oloi. Ah, mira jamna. Weri ma. Ah, hilang hilang. Unna business on. nan kili ambo mi ya gallo, mi ya joni boy. Ah, ndara le. Mi ya gallo. Ah, aye ah, gallo. Mi. Ah. Ko la jogi nyamande. Yandi jiare. Jiare, hajo ange jiare. Hajo ma non foti wonde jiare. Yandi jiare ko tan en fo yoboyta ko biyata tax lempo. Ko sifa an e sifa ma dum aran. Ono yeyoɓe galle har kan jiyan e hoorema a bokkaɗa e goto an tun jeeyi galle ma yeeyaade an andi siko terrain on tugol e darnaka walla galle darna ala pari yaare no no addi waɗanima ko wiyete capital gain taxe hay so anda ɗumno toon on capital gain taxe a foti mo yoɓɓude joni noon komi no yoɓrata mi ƴetta e mboɗi ɗi mi yeehi galle on fobbo e mi ɗum ɗon etta mbuɗi mane fof jonnaɓe ɗe wona ɗum de on capital gain taxe so kan yiyani mo hoorema kan yiyani hoore galle ɗen hoorema a foti yoɓɓude 5 pourcent walla 15 15% woni percent sappo e joyi temedere o sappo e joyi a faami kono ka yiyani gale ɗen hoorema si woni noon compagnie o yiyanima ɗe awa yobbude 10 percent walla 25 percent ɗum noon no heddi e mbuuɗino ko yeeyiɗa galle ɗen ko ɗum woni nde naforuji heewɗi kono fimi haalnama tun seeɗa o taxe o woni dépense laamu ngu on taxe ɓe ƴettata ɓe yoɓa police aɓe yoɓa fire service ɗon ɓen kadi moƴƴina tali laawi ɗi kamɓe moƴƴinita ɓe leɓitaji yoɓata jannoɓe ko école ji ɗin taxe ji ɓe yoɓirta ay nde wonde ɗon ndungu munsi ari ɗon roɓɓen ko marché ji ɓe tampa ha fii loope ɗe ete ni mbuɗi ka yetata ko moƴƴina marché ɗe mi sanga andude abba tampere o tampere ala ɗum ko ɓuuri yombude jiyaare place ji maɓɓe ɗum no heewi ɗo joni mi yaahi mi hewta e jiyaare en ni ni ono musidɓe a kala mo kala mo annduɗa ko jibbinani ndi leydi walla jooɗiɗa ndi leydi a waɗi a waɗi If you're just joining us now, Lord down Def, thank you for joining us though. Uh, we have a quick discussion topic here. Um, Antoinette Mo Nekwonsi yooni ñibeem ak mm-hmm. ñëwam liggéey ak yooyu noonu mm-hmm. mu ne daal dafa seetlu ne yelluwaankat yi dañu bari si yoon bi loolu jaaxal ko torop parce que mu ne ñu ndee gis ñuy yelluwaan ñoo xamante ne mooy ñoo xamante ne daal dara jotut leen maanaam gumba wuñ lafe mm-hmm. ñuñ ak yooyu noonu daal ah. soo ante wax waxtaanal ñu yow da si waa Coastal Road yi dang danaa siiwal di leen may bës waaw waa costarol la <laughs> ndax lii nekkul rek costarol mm-hmm. um, soo demee Serekunda soo demee place yu bari da ko dee mën a gis foofu noonu ndee mën a gis ñi ñoo xam ne um, comme jigéen ñi ñu boot seen doom yi toog si yoon bi tamit dine sooy romba ñu la dooma may lu maa jëndee lu maa lekka may ma ma jënda lu maa lekka wala may ma paas ak yooyu noonu dangaa gis ne yooyu noonu soo taxawoon foofu noonu mën nañoo jël ah, benn poti gerte ñu teg ko foofu noonu ñuy jaay wala comme dara jotut leen ñu ngi dégéer mën nañoo doxantu di ñaan nii mën nañoo dem tamit liggéeyal nit mu fee leen mën nañoo defar gaadin bu ndaw boo xam ne dañoo ah, ji seen ah, seen i crops waa lejum su ñoree ñu jaay ko ñu am seen xaalis nga xam ne duñ war a dem di ñaan nit pour mu may leen lu ñoo lekka wala lu ñoo jëndee garab wala paas daal ba pare itam dangaa gis ay góor yoo xam ne ay waxambaane yoo xam ne ñu ngi dëgër ñuy dem si yoon bi di ñaanantu dooma may five dollars yi waxambaane is a young a a young guy xale góor yaa da yoo xamante ne daal mun ngaa wax ne mut neen mu kalaf ko commencé toog waaw man tam waxam maa ne laa gis maa am fa léegi xanaa gisoo suma sikkin ay danga am sikkin ni waxam baare laa li du sikkin caaxaan li du sikkin coono tamit li joxe yàlla maa laa waxal comme anyway daal lu ma nekk di wax yëpp comme lu am solo lam ante ne lu mu nekk di wax nii comme mbiri ñaan bi si biir dëkk bi dafa nekk loo xamante ne doy na waa torop mhm. foo dem ngaa gis ku la foog doo mun a jógee Westfield dem ba sa kër amuloo tasewuloo ku la wax ne dooma ma baala nga defal ma lii doo ma baala nga jox ma lii doo baala doo comme nit nga ñaan ko mu def mu defal la dara loolu tamit aayut gis naa ne loolu tamit nekkul soo filee lay comme nga jox nit nga defal ko loo xamante ne dafa baax ñaan bi sax moo gën saaca bi waaw moo gën saaca bi waaye tamit waaye tamit comme nu ma ko nekkee di gisee da ngaa gis koo xamante ne dafa taxaw fii mu layee ne loo xamante ne lu rëy la loo xamante ne jaaru benn yoon da nga gis ku takkal loo xam bi mu ne moom dafa gaañu dafa bëggoon hospital dafa bëgg nga dimbale ko mu jënd ay garab fekk loolu amut yow nga layee loo xamante ne war a yàlla su la defalee loolu mu nekk dëgg da ngaa gis koo xamante ne dina yore doomam fii nii yore keneen fii boot ko fii mu ne dama bëgg nga dimbale ma ma dundal ñii pour xam nga fu mu nekk nii papam dee na nii man suma man rek maa loo xamante ne amut te soo soo tee a wax waxee noonu na ne kii ka joxoon nga ko doguma la de a dem nga ne ko ok naa la fayal paas daf laa wax déedéet ndax du dëgga demul biir kaama dafa bëgg nga may ko xaalis bi rek can I comment um, I'm gonna play devil's advocate begging is profitable mm. salary baaxul mm. right now right am na ñoo xamante ne man am na koo xamante ne ma daan waxtaan ak moom dégg la daf di yónnuwaat comme ni ko antoxee si yaram la nii la naka how say that word again yambaane waxambaane yi there you go mm. <laughs> si waxambaane yi la bokka njool comme Modou Top waaye daal comme daf dee ñaan waaye mu ne comme si dée bi mun naa ñaan bi am five taw ndaxte Gambien bi xa nga dafa baax ñun dey religious ñun dey dee génnee zakat ñun dey dee génnee charity mm. so ah alright su ma waree am five taw si dee bi si week bi loolu is like twenty thirty taw why would I stop? I don't get it. Why would I stop kooku <laughs> tekki na kooku fooguloo ne comme ñaan ñaan bu civilisé la day def. déedéet kooku ute kooku ute naa yelwaan de yelwaan ak ñaan dafa ute. ñaan bu civilisé de pot la amee. really pot pot la amee pot keseng keseng daf dee taxaw keseng sista waaye traffic light la dee taxaw. maa ngi mu ko romba Range Rover yi. waaw ñuy jël dañ mun a lifin borom four wheel yi di ko romba di ko jox ay arch ay 200 ay 400 loolu soo ko jëlee nga dajale ko di nga am tuuti. mais ma mais ma gàllankoor dara jotu ko. amul dara jotu ko. am na daf taxaw rek ne leen may leen hmm. am na benn góor boo xam ne benn jigéen moo ko mu ne góor bi daf dee solu comme sol yére yu tilim toog si yoon bi di ñaanantu waaye gis nga lu moo ñaan noonu daf ko use mu ut visa mu tukki. waaw am na ñu dee def loolu waaye kii mu faa taxaw every day ñu ngi ko koo jox. Mm. nit moo ko nekk di jox nekk di ko saaca. waaw ko may similar story so lu mu koo bàyyi. Mm-hmm. so nit ñu bëri dinañ ko gisee comme loo xamante ne business la. understand mm-hmm. nga. dañ ko mm-hmm. bugg a bàyyi because comme ni ma ko waxee rek ñun dañ di bëgg a jaay ne ñun dañ religious. ñun dañ baax dañ dañ am yërmande la waaw su ñëwee ne la hey anti man te yëpp lekkuma wax dëgg ne yàlla man jigéen bu ma ñaan. ne ma yaa booy suma doom yi. Mhm. rek dama dee. dama dee sof. seriously si saa si dama dee sof su ma ko amee dinaa la ko jox. waaw te tamit lu si gën a doy waar daal du ñëpp mun a romba comme kii su la ñaanee yoo nga romba ko keneen du ko mun a romba noonu la fa dee ah. demee te obvious comme automatiquement daal gars dañoo am loolu noonu fixe la waaye dam dañoo lu mu war a war a wax waa askan bi mooy ñu comme ñu ñu gën a nekk di def lii nii. dafa nekk dafa nekk loo xamante ne rafetlu ko te rafetul si réewi Gambie mm-hmm. soo seetee gan suñ jógee si biti ñëw. ngay approche Gambie di ko wax ne meema meema meema mu dem fële kii mu ne ko meema mu dem fële kii mu ne ko su fekkee dañoo wax ne Gambie bi ñaankat yi ñoo gën ne ko nekk ku nekk da nga war a lekka nekkut war a lekka waaye waru ñoo toon suñ bi mu nekk dëkki ñaan nañ def lu ndaw luñ a def développe suñ bopp suñ dëkk bi mun a dem kanam ok entre tey na am nga foo xamante na laa dogal plot understand nga nga am fo xamantene ne di nga fa mëna ji am na ñoo xamantene lolu amuñ ko lolu la tubab de wax privilege. You mhm. we're talking from a from a privilege. way comme am lu nek ma comme doguma la am lu nek di wax fini, nii ko wara a be mu set. Mhm. ñaan yelwaan dafa am. ñaan am na yelwaan am. Mhm. gis nga ñaan mu na jógee suma kër ma ne tey dépense. ken xamul dam la ñaan de. man dama ñëw sa dugg sa kër nuyu la nice talk nga may man dox ma naan ma la tay dëgga dëgga nekkul ne comme dama ñëw bu because of misunderstanding nii wala moo am de dam nañu explain na sama problème nga ne nga déglu ma naa explain ma ne la tey dama am famille si kër famille boo xam te ne ma maa yore gars aw ma dépense kon bëggoon nga ne ma lii ma lu maa dundee xam nga loo génne nga am sa xaalis dem defal sa dépense kenn xamul waaw dafa utee ak dem si kaw street bi every day nga def loo xamante ne dundin la nga téye pot soo téyewut pot sax nga sol sa baag kuromba nga ne ko plus bro baalaal ma pound baalaal ma pound baalaal ma pound ñeneen ñi nag duñ jël coins man gis naa ña ñaankat bu réew mu ngi nii gis naa ñaankat boo xamante ne du dee jël coins. am <laughs> serious am serious. dégg nga du dee jël coins jox ko coins mu ne la nii. waaw lu ma doyee coins bi. coins du ko jël. du ko jël. Serious. No, ko jël yaa ngi ñaan anglais ñu ne a has no choice Why? kooku de am na choice de am na choice okay that's a bit that's a bit extreme I would feel some type of way if I went to beg or if I give. if you begged from me and I give you and then nga onga. oo nga nga nga xeeb ko daal nga xeeb ko I would I wouldn't like that Anyway, that's all the time we have for this discussion topic right now. Let us know what you think in our comments and we might actually bring you up on the show. The port is along West Africa's busy shipping lane. Being the country's main gateway for international trade, the port of Banjul accounts for 90% of all imports and exports. The port of Banjul has been recognized over the years as one of the safest and most efficient in West Africa, offering prompt, reliable and value for money service. The port has well-developed facilities for handling all type of cargo using modern equipment and techniques. This infrastructure, combined with a competitive and flexible tariff and a dedicated workforce, ensures quality service to its esteemed customers at all times. The port acquired modern cargo handling equipment, ensuring high degree of operational efficiency which guarantees fast vessel turnaround time. The port of Banjul is unrivaled in Africa for its simplified trade documentation procedures, thus fast customs clearance. It has a deep sheltered anchorage with no record of piracy, thus making it one of the safest in the sub-region. Gambia Ports Authority, ready to serve you better in line with its corporate mission statement to excel as a leading maritime center for trade logistics and distribution. Jogal. Kër ga ma la doon xam ne démb rek barki démb rek am na ku ma kool di ma laaj ndax jar na am de ah, waaw yow wutal ma client wutal la client xam naa client jaay naa ko kay wax dëgg yàlla sant yàlla la ma bëri nag waaw jox ma suma wàll junne ba ma la ba ma xamee loon jël ko balaa nga may may junne nag waaw da ngay fay bor ba pare damay fa man dama xamee kenn bor ah amee loo kenn bor mukk kan la amee bor xamuloo kër googu ñuy wax jaare jaare jaare waaw waaw dama koy dégg fi ñuy fayee taxi yooyu fi ñuy fayee naamu dama koy dégg rek mu ngoog dafa am nag ci biir taxi yi lu ñuy ooyee capital gains tax. muy capital gains tax. waaw kay capital gains tax. bo waaw yow moom war nga koo fay fi mu nekk nii. man yow. man ma jaay kër ga xanaa ka ma ko jaay koy fay kay. mu ngoo xam nga kan moo ko war a fay. Ah. bu fekkee danga nga am imtilaan. waaw boo xam ne yaa ko moomal sa bo boo ko jaayee moo xam nu xaalis ba toll. waaw da cee war a génnee tax fay ko jaaree. dama ciy génne taxi. fay ko muy bi maanaam li ma ko jaaye hmm. laay dank yëpp. waaw ñëw jox leen leen jaaree jël leen. déedéet doo ko defee noonu waaye dafa am pourcentage buñ ciy jël dafa des nag ci xaalis bi ni mu toll ñu génnee ci mun ngaa fay sax 5 percent wala 15 percent. man naa fay juróom. waaw wala fukk ak juróom. waaw kay bu fekkee yow kenn la waaye bu fekkee compagnie moo ko jaay. waaw moo xam kër gi empty la. waaw wala dafa am taax ci biir. waaw bu fekkee compagnie ko jaay. Hmm. mun naa fay 10 percent. wala sax 25 pour cent. ma fay fukk wala fukk ak juróom. waaw bu fekkee compagnie. loolu la loolu mooy capital gain tax. te nag du laan rek ak yeneen yi mel ni moom yëpp. te xam nga loolu fay ko mu am solo. Ah. dafay dimbale réew mi gis nga agriculture bi. waaw njàngum xale yi. waaw tali bi hmm. hospital bi yooyu yëpp dafa bokk ci loo xam ne government bi daf koo war a def. nga gis ci sa bop yow legui bi manam fu mu may waxe yow ah. fi la defé beurit ah. dotuma jaar kër ga ni ah. nii jaar dem jaar yi yeen ñi dima sétane ak man mi di wax ak yeen daw len gaaw ngeen fay sen capital gain tax ci makani jaaree bu len gëna jégé ndax lolu moy doole réew mi and we're back um so we have another pretty interesting discussion for you guys. Um, an NGO called Safe Hands for Girls um, went into a community in Ibo town to sensitize them against um, female genital mutilation and circumcision, FGM. Um, so this is quite rampant in Ibo town and quite big in the Gambia. Um, a lot of our young ladies have experienced it, unfortunately. But um, we want to discuss a little bit about the practice, uh, whether it's harmful, whether it's not, what we can do to change it, and stuff like that. Top. Yeah, this, um, this is something very crucial when, when, when, when you're talking of FGM. am say suma naataango lu mu wasi kalama si kàllaama angale daal suma ñëwal suma mbokki wolof yi comme lu mu nekk di wax daal mu ne comme dafa amoon bunti néeg boo xamante ne mbiri comme lu ndee jël jigéen ñi di dugal leel lu F mu nekk FGM mu nekk female circumcision female genital mutilation dafa nekk loo xamante ne doy na waa rafetlu wuñ ko ñu ngi oo réew mi ñëpp képp ku koy def mu bàyyi lu ko mel nii so lii dañ leen nekk di waxtaanee fii nii te dafa nekk loo xamante ne doy na waar Fatoumata lii comme female genital mutilation dugal jigéen ñi leel dafa nekk loo xamante ne dafa bëri culture la dañ ko fi fekkas dañ juddu fekka ko fii si suñu maam yi ñu ngi koo def ñoo fekka suñu yaay yi ñu ngi koo def ñoo fekka ko gis ñu ngi koo def fu mu nekk ni ñu ko doon practice léegi foog naa ne wàññeeku na waaye ba tey am na ñu ko nekk def si ron te gis nañ i testimonies whereby jigéen xale bu jigéen def nañ ko ko mu ñàkk deret mu dee mu ñàkk si bakkenam gis nañ ko xale bu jigéen mu handicap si lii la nga xam ne nga lii dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar gis nañ ne te te te société ba seet courant bi bindut fen foo xamante ne wax nañ ne jigéen balaa muy mut bala balaa mu mun a sëy dafa da koo yóbbu leel ko lifin la aada la dañ ko fi fekka fii lañ koo bàyyi waaye mun nañ koo wàññi tamit mbite parce que dañ dem fekka comme dem nañ ba gis ne baaxatut si xale yu jigéen yi baaxut sugaay dee wasin baaxut sugaay demee si understand nga su gaay nekkee si wàllum mbaax ak di gis mbaax ak yooyu noonu yépp loolu yëpp daf la dee affect ah, du loolu du rek daf la dee daf daf xale jigéen yi mun nañ see jëlee feebar ndaxte benn riisa bu ñooy dogee kii boobu la dogee kele di dogee kele xamuloo ban façon yi feebar lañ la ñoo jëlee foofu noonu te loolu dina dugga seen yaram yi loolu moo taxit ñu ne dañ ko war a bàyyi am soo gisee nga ne dafa wàññeeku am na ñu ko dee def si dëkk bi am na ñu ko du def waaye soo fàttalee ko ba suñ ah, former président bi dëgërlu woon na si lii mhm. ñu ne dañ ko war a bàyyi moo taxit ñu dee ragal di dem si ron mhm. di ko def thank you very much depuis 2016 mhm. yaay dem dafa dugal loi boo xamante ne dafa ne ku xarafal xale bu jigéen dañ la war a tëj mm-hmm. ñu dugal la prison mm-hmm. fanaa loolu moo isi wàññite bi waaye ba léegi ñu ngi nugu di ko def te loolu du Gambie rek am de mm-hmm. I mean England tamit last year gaa ngi amoon loi bu gaay dugal boo xamante ne ñu ne soo génnee sa doom bi nga isi ko Afrique nga fal ko nga dugalaat ko England suñ xamee su docteur yi xamee ne loolu lañ ko def den dañ laa arrest yow yaay bi lu tax nga bàyyi ko mu dem pour def loolu loolu so lii nii aduna bi yëpp Afrique yëpp ko nekk di lifin waaye li ma bëgg a wax ak comprendre mooy ok léegi ñu ne aada la ñu ne pour xale yu jigéen yi ñu téye seen boppa la mhm. balaa ñuy sëy mhm. kon ana xale yu jigéen yi nga xamante ne defuñ leen ko xanaa ñooñu ñëpp téyewuñ seen boppa am nañ seen boppa am nañ si téye seen boppa lii according to the World Health Organization standard lii scientific proven something it is scientifically proven dañ dee wax ne comme soo gisee dundee bugga ñu dee xarafal xale jigéen yi si kaw loolu noonu comme xala su xale bu jigéen bi soo ko dee xarafal foo dee dog noonu lu mm. anglais dee wax clitoris mm. loolu daf dee wàññi bànneexu jigéen bi nu mu ko amee ak jëkkëram xam nga yaa ma understand te loolu noonu ah, dafa nekk loo xamante ne dooy na waar yow soo waree def noonu noonu xale bu jigéen dafa mel ni yaa ngi koo yaa ngi koo xañ bànneexam te islam bindul ko fen benn religion bindu ko fenn islam bindu ko bible bindu ko so dafa nekk loo xamante ne nit ñi dañ ko nekk def rek si seen own xelaat dafa dama gis ne loo xamante ne comme loo xamante ne daal si provinces bi dafa bëri foofu noonu because lii dafa nekk loo xamante ne dafa bëri si provinces bi ñun as journalist dañ dee dem coverages ak yeneen campagnes di ànd ak yoo xamante ne ñu ngi ko ñu ngi ko rafetlu wuñ ko daal te si mel si Louga ñu ko ñu xamante ne dañ ko dee def which is called like I don't know throw the blade something like wax ne bi mu ne wax ne comme ñu ko nekk def loolu moo nekk seen occupation ko because dañ dee fay gars yi képp ku ko def soo léegi gars den decide ne comme ñu ko daan def gannaaw suñu waxee gars yi ne bàyyi nañ ñu bàyyi lii nii foog ñu utal gars yi lu mu def soo den ut i means yoo xamante ne dinañ dugal gars yi si loolu noonu moo i sewing clothes sewing caps and other stuffs yoo xamante ne dinañ ko mun a jaay ñuy am dara foofu noonu soo skills yooyu leen jàngal gars yi ndax ñu mun a bàyyi jig dugal jigéen ñi lël ndax ñu mun a venture into those skills nga xamante ne dinañ dundal seen bopp di am good earnings. foog naa loolu tamit am na si solo trop. gis nga jigéen ñi ko nekk di def especially si provinces yi gars yi amuñ le ne xamuñ ne. Mhm. ñu ngi loor xale yu jigéen yi. non mhm. foofu laa mhm. bëggoon a ñëw gis nga maire yi soo leen waxee yëfi la dee ne man jaar naa si suma yaay jaar na si. dara suma maam jaar na si. dara jotuma man bi aw ma any complication. bu fekkee ne loolu moo la dal dëgg dëgg dëgg da nga am sens trop mm. ñu ngay gis lu bari xale yu jigéen yaa ngi dee si lopitaan yi su gaay di wasin mm. pour lan yëpp ñu bari si ñoo mm. loolu moo ci loolu lañ jaar li dem through moo tax waaye dangaa gis ne noos yi sax ñemeñu ñoo génn si wax because soo génn si wax dañ dee foog ne yow góomuloo aada bi Mm-hmm. dëgg la suñ aada suñ cosaan suñ religion important na mm-hmm. dëgg la religion bi tamit wax na ne xale bu jigéen dafa war a téye boppam mm-hmm. waaye am na ñuy jàngalee sa doom bu jigéen nu moo doxalee ba boo boppam ba nga xamante ne du ko def waaye jarul nga traumatise ko ba foofu noonu man daal jaaxal na ma daal mbir bi jaaxal doguma la de um, <clears throat> gis nga lii suñu waxee ne aada la ñu ñëw ba gis ne baaxut docteur yi sa gis nañ ne lii mu ngi sonal xale yu jigéen yow doo jur sa doom bugg a koo def loolu mu dee waaye su nekkee xamuloo ba ñu gis ne lii baaxut ba suñ nguur bi jóg si loolu noonu mu ne lii baaxut nañ ko bàyyi jarut ñuy delluwaat ci ron di ko def ñu ne suñ aada wala comme noo ko waxee suñ maam yi jaar nañ si man jaar naa si suma yaay jaar na si dañ ko war a bàyyi ndax baaxut mu ngee loor gaay su nekkee aada la sax mu ngee loor suñ xale yi soo gis nga lii nii dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar mu ngi mu ngi disturb suñu xale yi jigéen yoo xamante ne yoo leen yoo leen fi am si réew mi te yoo xamante ne loolu tamit dañ ko rafetlu wuñ ko so dama gis ne comme dam comme dañ si war a gën a teg i jël i jéego nguur bi daf si war a jël i jéego taxaw si gis ne lii nii dafa nekk loo xamante ne jeex na si biir dëkk bi because fu mu nekk nii mu ngi lor lu bëri mu ngi rëy mu ngi tax xale yi di ñàkk seen deret yow loo xamante ne dina la lor fooguma ne aada ah, boo xamante ne dafaa lore daal muy waruñ ko. rek lañ am pour suñ fi discuss ko dina so ñu ngi we we're gonna go on a quick commercial break and we'll be right back. For high quality fuel, right quantity, at the right time. Korɗal aɗo korɗal eh, sumoon ena moɗon ɗum ne korɗa waafa ne profit sonoye e ñantanala yele na mo namojo janggo ala na mo profit ñim keme o keme nene tanni lulu ñanta wala joola jeyare e jang ila keno min mula keno yawa fe ina namojo fana kon e eh, ha ko mbomoyo lete adame omoyo lete yarete mantere ja e eh, moussa ala keno la korɗala waafi ala korɗala waafi aka wala foyo ko anata wala joojan capital game tax to jang anata wala jojang da kemi wo kemi si latan anin lulu ayanta wala jola ila profil momo niyalon ko ka korda la wafi walla korda lorin bandi ngoy ka wala wafi ite nyanta nyin capital game tax jola jiare compagnie ni atala dum fanan ibe compagnie le kono compagnie ye siyasa do je walla ye ye e mandin kol ka fa mu ye ko niyo be je le compagnie nyin kono so ite nyanta munekela se kemi wo kemi si la alfanna do bi je bo wala jola ala fannaɗo ɓe je keme sidu keme seydula ani anin luulu iboole joola adi bo jola min dola wala mo nyin capital jem tax to diare ñanta joola wala ko femano nañi jatta ken ya bundal nyin karam wol kukatol ku ka boñin namoɗo ko a kujama jama bama ka nyin namoɗo ko amanda wala bakary nañin stilol men niti nyata ana bo ka kata jeele mbaajure komin mbaajuri jande malam bang fo mum toon gambia dawoda hon ɗo mbiyaajole mum toon jiyarela office oɓe dawoda ni tefutata jee iɓon naata capital e jem taxe le jo damo naata wole jo ibaajola e baɗimolu

ok a ɓayitindi bo fama lene ndi wonti woni tirin bo kon tiɗi sahel network tv ɗi ɓanjon dagi wonde ka wolindi kura yonde karindi ki jak cak sanki cun rmi joina ni me nul ni ɓaron je pano ci ñani me ka nekum na wek aic e on ciwi ceman baba kaka pona nul kak na jadi ka jako di komen cun ga pondol jakaten koye me ci meyo ɓanjol na yepi na sing kuma pot di media ci di ucaka ya ci do ko fere poches nga pondol jakate nyani mechum mama kande jawmbanya aisi ci nabe beki wondo ko gucci karta kuma baru kibach pour ci yara di koy meci un ka guci karta ke kan keng di 2021 jakate nyani me don ci ambassador a uh, ucaka jay malaysia un ci wi ambassador dia aja na sim pernah canda koy meci We are fatu to jawi far to matajawara jawi di koyebuji ɓayigris ko social media ubanja kaka kakaten ko tomanawi on président adama baro Aja di standard banya standard newspaper piɓan bukon kuma na koja ngi tele ni ngi radio a me ko cici ɓarare um, yolɗo en ci kuranje thank you very <laughs> much and so I'm glad that you got that off your chest. Now, um, we have a really interesting topic for you guys. Basically, transport fare fluctuates and changes like the weather outside of Gambia, um, in the sense that today I pay eight dollars in the evening I pay ten dollars To get to Banjul, I'm paying twenty-five. Some mornings I'm paying fifty. Um, it seems like every driver has their own system. Origa, driver bi ku nekk dafa am feemam fu ko neex la moo toog. fu ko neex la moo eewee fu ko fu bi yóbbu mu dem. so loolu lañ bëgg a waxtaanee parce que man dégg dégg dégg daf ma dee xala naxari nag. understand dañ dee plan ne lii mooy sa last. ok suma last ten di yaa ngi nii o suma last eight di yaa ngi nii xaruma dugg si moto bi ñu ne la ten dala si la souvent nga toog di ut coins wala di lifen mm. wala ne comme da nga war a dem Banjul bés bu nekk 25 dollars la nga budget ko mm-hmm. nga wax sa boss ne lii nga maa fay pour transport mm-hmm. kooku ñëw ne la 50 la after nga short transport mm-hmm. nañ waxtaanee lii because man moom man moom dama sës fi mu nekk nii dañ dee cincu meer yi suñ dee duga si biir van yi ak taxi yi soo cinco ba fight be duga after da nga bugg a fight driver bi pour xam lan moo xew xam soo bugga naa ñu discuss li antu lu si sa man suma xalaat mooy dry faydar daar leen neex lañ dee fole ndax duñ ci jëlee dara ndax dara du si génn maanaam dangaa gis nga dem si garage bi sax amee sa benn last ten dollars comme noo ko waxee driver bi ñëw naan Costa Road fifteen dollars Costa Road yaa ngi amee ten dollars di nga duga <laughs> doo duga ndax benn ten dollars si boobu nga amee soo duggee si biir moto bi tam dafa nekk benn beneen coon ndax ten dalasi nga amee te dégg nga bu ñu doon wax fifteen dalasi soo duggee ñu ne la wa soo am na ñoo xam ne dañ dee dangal duga gis naa ko benn góor mu duga ñu mu fay paas bu buñ dee fay muy eight dalasi ñu ne ko waaye yow ñeneen yi xam nga ñeneen yi si ñoom dañ am problème ñu ne waaye yow dégg nga mu ne paas fifteen dalasi mu ne ko paas bi eight dalasi la ñun ñoo koo nangu gaay def ñu ko waaye suñ nanguwut gaañ duñ ñu ko def dangaa duga si moto bi nga dangal loi bi daf ñu dee jox pass pour fu nekk right waaw pass from tariff bi waaw waaw tariff bi dañu ko dee jox mhm. every every month right if there's a change in the tariff it's usually announced through some, some form of right? so everyone can collectively, one. Why Why why comme ma nekk di wax moy siso bu nekk di wax ni moy problème bi nak. Yow so duggé moto. nga nar a fay nga ne yow mii ten dalasi leen dee fay ten dalasi ngay fay ñoom ñu ne 25 benn ñaar ñetta ñeneenti nit su nanguwee si ten dalasi di reste du nangu loolu ñoom dañoo bëgg a fay 25 because nit ñi amul soxla yow am na looy dawale man dawalewuma lool noonu mm. soo yow fu mu nekk nii comme xëccoo bi dafa bëri foofu noonu because doo bëgg a waste time just ñu ne la ne ten dalasi difference wala 15 dalasi difference loo xamante ne daal mun na laa yaaxal i soxla yi bëri so dafa nekk loo xamante ne dafa mel ni lii culture la léegi Gambia moto dafa fulee fu ko nee mu caaj nit lu ko nee mhm. fu mu nekk nii réew mi nit ñi den soona si loolu dafa naxari démba rek démba rek démba rek laa la wax ni ma daan jogaan ba jógee Banjul simila isu loo xamante ne dafa serious dama taxaw si aaj bi mënuma am moto moto moo ñëw man ma foog ne moto bi dafa ma nekk di may liif mu mel nii private léegi fu mu nekk nii sax mun naa wax taxi driver moto mun naa nekk taxi driver moto bi mu taxaw ma dugga waxu dara de dama dem ba Westfield mu ne ma ne sa paas ma génne 50 dollars ma jokk ma fa nekk daf faa génne 10 dollars wala 25 sax. waaw ko dee mën a def 25 mu ma ne non paas bi 50 dollars la. fekk yow jox la ko ma ne ne bro yow naka laa mooy nekkee 50 dollars diggante aaj fii nii Westfield Westfield. yow man most of the su ma dee ñëw suba 50 dollars sax at least ñeneen ñi dañ dam ma fee dama fekk ko because dama bëgg a teel a aaga dama ko dee jéngu forom Costa Road bébaa ñu fifty dalasi yow nga ne ma mm. ne Westfield bébaa ñu fifty dalasi naka la ko mën a demee ma ne ko ne lekka ko dinaa la ko bàyyee because du ma xulaa yow yóbbu ko wante tamit muy loolu sax morom dina la def loo xamante ne neewul la yow tamit because bëgg maa xëccoonte am moom yow mu ngi am lu ko naxaari ko loolu xam nga man du ma xuloo kat waaye yaa ngi ko tojal non xam nga daf dee baax nga wax nga wax ko dégg bi pour su demee even su nekkee sax du ko xam boobu noonu waaye su demee mu da nga foog dee xool loolu ah. dëgga dëgga yombut Westfield ñu ne la Talinding ñeneen ñi ne la ten dollars yaa ngi ñibbi ba Costa Road ñu ne la Westfield Talinding nga àgga Talinding keneen ñëw ne la Latrikunda laay am mm-hmm. te suñ duñ am foofu de ñu àgga foofu <laughs> ñu am Costa Road fekk yaa ngi si biir moto man lu ma si gën a métti mooy moto bi daf dee nga ne ko da dem mu ne noo demul waaw dañ wàcca gestu rek nga dégg mu ne Banjul nit ñëpp di duga mm. soo yow soo dawee noonu si diggante boobu leen dee sàcce ñeneen ñi si diggante boobu la ñeneen dee daanu ñeneen seen yére di tilim Um, I witnessed something quite dangerous on my way to Banjul. By the way, I had a good commute to work today because dama wàcc coopérative. Hmm. ma am moto. ma ne ko ñaata la ma expect mu ñëw dóor ma ak 50 dollars mu ne ma 25 ma ne ko pas de problème man foofu laa toogee nag. Ah, assumer suma position am na taxi yoo xam ne 25 <laughs> la. balaa may def loolu noonu um, am na van bu ñëw. ten ten dalasi. Mm. paas bi pour van bi. bi van bi taxawee rek dafa ne Banjul rek ñëpp roche. Mm-hmm. Mm-hmm. si roche boobu maire yaa fa. Mm-hmm. paa yaa ngi fa xale li school yaa ngi fa. Fatoumata Origa ñun disket yi suñ ko tubaayee ñun tam ñu ngi fa. understand ah. maa si ñoom topp yi fa. it's like survival of the fittest. it shouldn't be like that man mus naa South Africa, for example. So they may e support jël van da nga rang nga civil waaye Gambien bi amuñ structure. rang moto mu ngi ñàkk. da nga taxaw hmm. nga moto mu ngi ñàkk waaye da kan mooy contrôle rang kan mooy contrôle rang ñëpp buka ngi bugg a dem ñëpp a ngi yaakamti. loolu yow da yow you're in charge of that. Hmm. Lulu, you're in charge of your behavior. balaa may dem di bamaxante ak mairie ak paa. nga taxaw meele. doo doo dem teman luma, teman luma ma te man lu ma si gën a jaaxal soo buggee taxaw xaar kay dem lu si gën a du ñeme wax ne lii nguur bi nekkoon di ko dégga nguur bi nekkoon di ko gis because si trafic bi la ñuy nekk di daw. sorry nga baalal ma ñaari state vehicles romb nañ ma. fi ma taxaw noonu. at least ñaar romb nañ ma gis nañ fu ñoo dawee di rush di lifin. te loo te loo te yoo loo gis la ak am na yoo xamante ne gisuloo ko te the same thing mu ngi mu ngi happen léegi fu mu nekk nii nguur baa ngi gis lii nii police yi ñu ngi si check point bi. Yo poli fa taxawoon tey suba coopérative police yi ma ne ma ne leen si moto ma ne ma driver bi man gis nga man su ma nekkoon inspector general IGP man lii nii dafaa génn damaa make sure ne check point bu nekk dañoo xool moto boo dem because dëkk bi dafa am i yo yow Latrikunda amul garage amul garage amul garage Talinding amul garage loolu naka la moto du jógee Kostoro mu ñëw mu ne Latrikunda mu taxaw mu jógee foofu mu ñëw mu ne Serekunda mu jógee foofu wala sax mu laaxu sax dem Westfield waa léegi nga war a fay joori paas. yéen sa client yaa dee waat apprenti doo dem tabo ko ñu fay la ku nekk fifteen daal. yow yow sa bopp nga xam waaye xamuloo nag ñeneen yi amuñ ko. benn story loolu lañ fi war a bàyyi. benn story léegi léegi benn story la. Balanga Edugasi story. Unfortunately, we've actually run out of time for this segment. Mm-hmm. So, to you guys at home, let us know what you think about the transport fair palava in the comment mm -hmm. section. And you might get to see yourself on Sahel Network TV. We'll be right back after this commercial break. Tigersman has been in Gambia since 2012. Tigersman has the highest grade of 52.5R to get the job done. Tigersman is Gambian owned and comes from the biggest plant in the Gambia. With Tigersman, we can supply the whole of the Gambia, no matter the quantity, with our lowest cost when building our Gambia National Assembly for our members of parliament with the ongoing building in the University of the Gambia, we call on to Tiger Smith. You can now purchase your Tiger Smith at Birkama, Basse, Farafenye and all jar oil station across the Gambia. For faster delivery, call us now at 770

like to discuss something that's been affecting our society for some time, um, a topic that was pretty hot in 2020 about human trafficking. Um, we have our sisters being trafficked to some Middle Eastern countries, to other African countries, and they don't even realize it's trafficking. So I'm going to give a scenario real quick just to contextualize it for you guys, and then we'll go into a quick discussion about it. Let us know what you think in the comment section, yeah? All right, so um, someone approaches Fatumata and says, Fatumata, I have this lucrative job for you. Mind you, Fatimata has not much of an education and um, I'm looking for job prospects. I, I want to get out of Gambia. I'm frustrated by the situation here. And this person knows that. They know that you're frustrated. They know that you're vulnerable. So they target you. And how they do that is um, by offering you something that you want. So, Nyinyo Nyuna Mafatmata, Dangabuga Tuki. Um, amal naa la liggéey Yemen wala Lebanon wala Kuwait mm-hmm. um, liggéey mbindaan la da ngaa bambaane xale bi waaye soo aagee dinañ la fay four hundred dollars per month yeah mm-hmm. xam naa ne su ma toogee Gambia liggéey duma ma am four hundred dollars per month so damaa ne hey toog diga diga afo billaay mm-hmm. kaay leen ngeen yóbbu ma understand then topp yóbbu Yemen su ma demee yemeen kooku noonu jël suma passeport bi siis ko ba pare di ma liggéeyloo bés bu nekk di ma dóor di ma abuse di ma maltreat mm-hmm. waaye man koo muñ because tamit ñi nekk si kër bi ñu ma yaakaar um, ak ñi nekk um, nekk si kër bi ñu ma yaakaar ba pare comme xam nga rek soo génnee ñu yaakaar ne dafa am looy isiwaat soo man foofu lay toog di muñ foog ne li ma muñ lu jaar si yoon la du yoon that's called human trafficking it's illegal by international law standards. Mm-hmm. So can we discuss a little bit about this? Because a lot of our sisters are falling into this trap, looking for a better life. Some of them end up being sex slaves even. Like, it's really, really unfortunate. I have a question. Dama am lache. Nanyi suñ demee be aga foofu noonu ak dóor wala su nekkee dañ am maltreatment foofu noonu di leen def at the end of the day dañ jota jot si seen xaalis bi ba ñu yónnee ko kër. soo am na ñoo xamante ne um, ñu ne duñ dee jot sax seen xaalis bi duñ leen dee fay sax li nga lekka lu ndaw la dee nekka mm. um, ba pare dañ la dee wax ne comme suma kër nga dëkka nekkuloo di fay ren mm. nekkuloo di fay light nekkuloo di fay ndox di fay ndox soo loolu la wala ñu ne la dangaa fayeku sa njigi ticket bi mm. ba pare pare man by the time you finish paying that mm-hmm. family. lii dafa doy waar nga jóge sa dëkka dem dëkka beneen dëkka foog ne di nga daal sa doole am loo xamante ne dina la mun a dundal dundal sa waajur dundal sa i famille si kër bi nga ñëwaat nga nga gi dem nga gis loo xamante ne affaire bi naka su dul noonu la ñun laa def loo xamante ne mun naa far sa bakkee ñun laa def loo xamante ne ñaaw na nekkul loo xamante ne rafet na di la door di la def lu loo xamante ne daal rafetlu wuñ ko daal dafa nekk loo xamante ne doy na waar ba pare lii ñii nii ñoo xamante ne mosof loo xamante ne recently boo xam bu am nii moo nekk Libanon jigéen ñi la gars yi select ñu yóbbu gars yi xamante ne ñu stonal gars yi foofu buñ xatal gars yi ñu am na ñoo xamante ne sax jot nañ si ñu am si loo xamante ne dafa métti te ba pare ñii su ñëwee dem man lu ma believe man suma own opinion mooy ku waxoon gars yi bul dem dara nekkul si dëkk bii nii. Mm-hmm. dañ laa woo dañu laa lu ñu wax mooy. da nga iñaan lu da nga iñaan yow bëgguloo ma ma mee ko bëgguloo ma ma dem si dëkk bii nii ci loo xamante ne nekku foofu noonu te yow deme nga sa bopp gis nga lu fa nekk métit bi dal na leen dafa nekk loo xamante ne dañu ko a xelaataat man naa ne comme ñu fi nekk gis lii nii jigéen ñu nekk fii nii su nekkul jigéen sax ak képp ku munti doon ñoo xamante ne gis neen lii nii loo xamante ne def nañ ko ñii nii foog naa ne su si jàngee si lii nii Gambia duñ amaat loo xamante ne mel na lii nii nañu eewu ñu xam loo xamante ne ñu nekk si ñu ne koo def loo xamante ne mu si biti mun nañ koo def fii nii ñun la dëgg la tamit ne jigéen ñi obviously are easier because ñun de ñu dee wax ne comme jigéen boppam dafa oyof. waaw xam nga comme like su buggee daan dooleem daf dee dem ak yooyu yi. man nag ma dee jaaxal suñu waree wax jigéen boppam dafa oyof boppi jigéen boppi góor boppa boppa la. yàlla moo yàlla moo defar boppi góor defar boppi jigéen ñu wax ne comme suñu jëndal kaay boppi jigéen lu waral lu waral jigéen yi. lu waral then am at some point jigéen ak góor ne nekk classe la moo waral jigéen mu dee jël force sometimes. Mm-hmm. góor di jël laas sometimes jigéen mu jël. jigéen la xanaa du boppa bi. <laughs> waxu li ko waxoon ma jigéen ñi ñoo ëpp a boppa ah, seen boppa yaa gën a moo tax ñu jigéen ñi ñoo si dee gën a ñuy jël force. waaw léegi léegi la moo waral ñu ne jigéen ñi seen boppa dafa oyof. déedéet loolu dama waaw xam man wax naa leen man suma olof. waaw waaw mun naa wax tamit comme dañ jël avantage. si kaw vulnerable so they easier to target. seriously waaye xale yu góor yi ngay nekk di target tamit. Mm, mm. they in vulnerable positions. man mm. loolu laa bëggoon a highlight. suñ brothers yi nekk di dem back way am na si ñoo xamante ne Libya lañ leen dee jëlee ñu transport leen. traffic lane to hmm. other parts of the world. waaw mu fi. dañ dee daj façon yooyu jigéen ñi rek la nekk di dal loolu laa bëggoon leeral. Hmm. du jigéen rek. Hmm. mu ngi dal suñ góor mu ngi dal suñ brothers yi tamit. understand man loolu bëggoon a leeral rek si kàttan. Ah, am na am na ñoo xam ne tamit dañoo dem si baag bi comme na ko waxee mu am koo xam ne daf leen jël ne la kay nga dika si man dinaa la utal ay kayit gis nañ ko fi dégg nañ story si dinaa la utal kayit kaay nga liggéeyal ma nga dem dëkk si kooku noonu yow amuloo kayit mu ngi laa abuse nu mu ko neexee mu laa abuse ndax yow doo mën a react si loolu noonu wala wax damaa dem fii dem fële. tamit trafficking yeah meaning ne to another. understand so mm. bi maa woowee fii back way yow soo jógee Gambia nga dem Libya. waaw mu doesn't really constitute trafficking. Well, human trafficking and not illegal migration. So yeah, illegal migration and human trafficking are different. Mm-hmm. Trafficking tamit, mm-hmm. am na pour xale. Mm-hmm. dañ gis yu bari ñu gis xale ñu ne la xale bi nii gisatuñ ko dem na. dafa demoon school. wàccu gisatuñ ko. that's trafficking. because dañoo jël xale bi yóbbu ko Sénégal yóbbu ko si bi or whatever. that's trafficking. Costa Roll fii nii am na taxi driver bu ñu téye woon. mu ngi eb beneen koto gaa ñu ngi téye xale bu ndaw ñu ngi ko takka lu si gën a doy waar si but bi leen ko def ñu ne benn na Nigerian la nekk di diilaat kooku noonu te soo xoolee ba xool taxi driver bi lan leen ko fay 300 dalasi stamp trip. 300 dalasi kooku noonu dañ ko doon def si vidéo yi di ko def whatsapp fu nekk dañ ko door bugg a ko waree après police yi ñoo ñëw intervenir police yi ñu ñooñu noonu waa ñoo xamante ne foofu leen nekk muy waa Costoro ak ñu nekk si marché bi. ñu ne police yi sax su ñuy intervenir sax lépp lu gaa mu ñu def ñoom loolu noonu taxul gaa yi stop. kon am te lii mu ngi xàppun mu ngi xàppun si noonu dañ ko doon dem ñu sacrifice ko la ñu def ko dara. waaw xale boobu noonu yàlla moo mucc moo ko moo ko moo ko moo ko seef daal xale boobu noonu léegi dañ ko seef fu mu nekk nii gaa yi kees bi gaa ñu ngi koo fóolo loo xamante ne dafa doy waar trop. su kees obviously dina àgg si code bi because legal matter la legal thing la dafa nekk loo xamante capital offense la lii loo xamante nga war a téye doomi jàmbur nga naax ko um, jël ko yóbbu ko te lu si gannaaw ban mooy gars yi ne xar moo nekk si gannaaw lifin bi ndekete nit moo fa nga den reportal issue boobu noonu soo mu biréegee moto boobu noonu ngay xool mu nekk loolu noonu ñu xool si gannaaw moto bi gis foofu noonu xale bi ñu ngi ko ñu ngi um, a soo gisee beneen ku jógee beneen dëkk di am access pour yóbbu suñ own Gambian people ndax Gambian yaa leen dimbale. déedéet so lii tamit war nañ ko leeral fi mu nekk. nekkul ñëpp ñu ngi fii. yeah Gambia duñ dee nangu ne ñun suñ nit ñi tamit am na luñ yuñ dee def yoo xamante ne dafa doy waar. Mm. TRRC balaa TRRC lan lañ daan wax kay dañ isi mason yi congolais ak ñi ak ñi la tuuma ñooñu noonu ne. Mm. waa ñooñu ñoo de ñoo rey. Mm-hmm. bi testimony yi starté luñ gis. waaw dëgg la dëgg la gis nga comme. Gambien yaa ñu doon rey. comme suñ si mën a génnee suñ bopp de. waaw gis Gambien ni moom. Gambien mbaa nekk taxi driver taxi driver comme ko waxee la ñu fay la xaalis bu ndaw pour nga def loolu noonu yow where is your love for yow seetal ndax sa nekkoon sa doom la di nga ko takka def ko si but si buti moto comme noonu mm, yii ñun Gambien yi dañ ci war a bàyyi suñu xel torop soo waree wax lii nii soo waree wax nit ku bon nekkut ñëpp even sooy tudda mm, groupe of ñoo xamante ne den bon foog nga am ñoo xamante ne den si baax am ñoo mm-hmm. xamante ne den si bon soo foog nga séparé séparé gars so loolu laa nekk di wax nii dafa dafa dafaa koo xamante ne daal ku bon si biir gay la rek mu bëgg a tilimal ñëpp because yow soo waxee yow Paul nga nga def lii nii dañoo wax Paul moo def lii nii so fo at the end wax ne Paul xam nga Paul yi ñuy Paul yi nii fekkale ko Paul yi yëpp mm. loolu muy loolu daal generalisation dañ ko war a moytu parce lu garaaw la exactly benn yaho sibiri sako volontaire yëpp a yaho da ngaa génne seet bi benn boobu noonu nga sànni te du waaw so lu ñu tam dañ war a jàng pour def loolu tuuti suñu rafetal suñu wax yi tamit yenn saay waaw léegi ñu ngi leen a jaajëfal pare nañ si segment boobu noonu we'll be right back after a quick break with your news in English Kill the king and save the kingdom. take the ring and take your freedom, reclaim the crown and claim the throne. He wasn't anything. We didn't make him. He didn't have anything. We didn't give him. So why were we so helpless? See the pain that we endured, the injustices that occurred the bullets we couldn't dodge, the courage we couldn't forge, the lives lost and gone, the victims not allowed to mourn, tears hidden behind fear, the pain we couldn't share. For one man was the gun, the bullet, and the trigger, the judge, the jury, and the executioner, but he wasn't anything. We didn't make him, he didn't have anything. We didn't give him, so I ask again, why were we so helpless? See, I will tell you why. It is because the voices that were supposed to hold him accountable became the voices that sang his praise songs, refused to speak against his wrongs for far too long. So instead of loving him, we feared him. Instead of following him, we obeyed him. Like slaves, we bowed down to him, begged when we should demand, lived and died by his commands. Like classless soldiers, we obeyed and never complained for reasons only greed and ignorance could explain. So we, we created our own dictator. We empowered our own oppressor. We rigged our own systems, dug our own graves, composed our own funeral songs, became strangers where we belong, refugees in our own homes, killed with our own guns by a monster we created on our own, a president we voted with our votes. But he wasn't anything. We didn't make him, he didn't have anything. We didn't give him, we were powerless because we chose to be. But today, today we turn on a new page, a page where the voices of the victims will take on the center stage, uncage the fear that haunted us for 22 years, crown the truth to reconcile and repair the wrongs we suffered, heal the wounds from the past, the pain we can't forget, and paint a new chapter of impartial justice where impunity is locked in the dungeons of retribution and injustice is hung to death by the flag of damnation. For together, we are stronger. But understanding who we are and the power we wield, will make us unbreakable. Ignorance is a crime and we have paid the price. Enough. Never again will we watch while the evil rise. They can't be anything. We don't make them. They can't have anything. We don't give them, so we will make just and honest men out of our leaders. They will be humble, transparent. They will be accountable to us. We will alter their DNA if we have to, but they will learn to love and care for their countrymen. They will feel and understand the pain of the ordinary citizen and they will learn to serve selflessly and they will do so with integrity. Piece by piece, we will piece together every section of this nation. Do you hear me? So we will forgive, but we will not forget. We will never be victims again. We will never be silenced again. We will never be used or abused again. One man will never wield so much power ever again. For if the nation is the people and the people are the nation and we are the people, then like democracy dictates, the power to rule must be ours to give. This is our generation. We will lead it. It is our nation. We will run it. It is our future. We will have it. It is our right. And we will take it. So kill the king and save the kingdom. Headlines in English by yours truly. Oromi Joyner declines to comment on his rescinded IEC appointment. Banjo City Council Mayor Rohi Malik Low urges Borough to expand the port. Kande of GDC warns IEC against any electoral misconduct in 2021. Ex-Ambassador Diab advises Borough over Nam Jawara's comments Baro accuses radios and TVs of false news according to the Standard newspaper. And that's all we have for you for the news in English. We'll be right back with Love Talks. It's the GNPC December Bonanza. December Bonanza. GNPC's massive December Bonanza gives you a massive discount of two delices on pump price, diesel, and petrol across all stations from the 15th of December to the 15th of January Anytime you buy diesel or petrol, you will be getting a two Dalasi discount per liter. Two Dalasi discount per liter on your purchase which means the more you buy, the more you save. And the more you save, the more you get in your fuel tank. GNPC's December Bonanza, giving you that quality fuel at a discounted price. Get to any GNPC station and enjoy your massive December Bonanza discount. Hey. Enda oloi. Ah mira jamna. Weri ma. Ah hilang hilang. Unna business on. Ah nan kili ambo mi ya gallo mi ya ni ma joni boy. Ah ndara le. Mi ya gallo. Ah ayi gallo. Mi. Ah. Ko na jogi nyamande. Yandi jiare. Jiare hajo ange jiare. Hajo ma non foti wonde jiare. Yandi jiare ko tan en fo lempo. Ko sifa an e sifa ma dum aran. Ono yeyoɓe galle har kan jiyan hoorema a e goto an tun jeeyi galle ma yeyade an andi siko terrain on tugol e darnaka walla galle darna ala pari yaare no no addi waɗanima ko wiyete capital gain taxe hay so anda ɗumnoto on capital gain taxe a foti mo yoɓɓude joni noon komi no yoɓrata mi ƴetta e mboɗi ɗi mi yeehi galle on fobbo e mi ɗum ɗon etta mbuɗi maɗen fof jonnaɓe ɗe wona ɗum de on capital gain taxe so kan yiyani mo hoorema kan yiyani hoore galle ɗen hoorema a foti yoɓɓude 5 pourcent walla 15 15% woni percent sappo e joyi temedere o sappo e joyi a faami kono ka yiyani gale ɗen hoorema si woni noon compagnie o avez ɗe awa yobbude 10 percent walla 25 percent ɗum noon no heddi e mbuuɗino ko yeeyiɗa galle ɗen ko no wondi e naforuji heewɗi kono fimi haalnama tun seeɗa o taxe o woni dépense laamu ngu on taxe ɓe ƴettata ɓe yoɓa police aɓe yoɓa faya service ɗon ɓen kadi moƴƴina tali laawi Kami mau ini tak lebih lebih tanya. Ibu ada jangan nope, saya call di taksi di ibu kita. Ayat dia wanita don, dungu si ada don. Berat yang kemas lagi, sampai apa ha? Feel Kita ini bukan kerja kita. Kamu ini mas. Misalnya andu de, apa tempere, apa sampai alam. Kau yang buru, jari. Plus jemput ini mihir itu. Jangan mihir, mihir utai jari ni ni. Mana musik dia? Kalau mau kalau mau antar kau jibinan dilihat, walau jual dan dilihat And we're back now for you guys' favorite segment. I know it's mm-hmm. talks. Um, we're here for the love talks. Our yes. letter today reads as as yeah the following. Um, it says, "Dear Mata, so it really baffles me how small the Gambia can be sometimes. We can all literally end up dating the same person. <laughs> Last week, my sister started dating my ex's brother. I thank God that I broke up with the guy before because I feel like it would it would have been weird for both my sister and I to date two guys from the same parents. I would like to know if it's normal to date someone who once dated your close relation. All right, guys, that's Love Talks for you today. Honestly, hmm. I don't know, maybe I'm a little bit crazy, but I don't find anything wrong with that. If you're done with your ex, and your sister goes and dates his brother, waiting concern you for that matter. Like, eh. what do you have to do with that? Nothing, don't absolutely. Don't with what? But don't. Um, imagine your sister dating a guy, and you date the guy's younger brother, at the end of the day, if God willing, both of you are going to end up marrying in the same house. Is it's, that awkward it's, though? It's disgusting, but I will I will call it. Sorry. Love, I will call it love class. One second, one second. They're not Vehicles dating, class. One second. Aeroplanes do not Can class. I comment? They're not dating they, the same guy. Uh, They're dating two different brothers. So today, if me and Anto are sisters, and we come and date Top and his brother, that's not a bad thing. First of all, I feel like that saves on wedding expenses because instead of having two separate weddings, you can arrange everything just no, no. you know <laughs> that's not what we do. So, um, we feel that's it's not right. It's, it's that's not, not right. Why Imagine coming right? from the same house. Mm. In my Manjago culture, we don't accept it. Mm. We don't do it. Culture it's totally on. Tell me accept. what is wrong. Two what sisters cannot go and marry in the same house. Why? That is what we believe. Why? In. Why? It's wrong. It's why not, is it wrong? It's not, listen, you okay. Say, you Your blood sisters. Hold on, hold on. What I don't understand is, yeah, you say with so much conviction that no, it is not right, it is wrong. Yeah, I can understand. Okay, we believe it's hold wrong. On. I get that. But again, I'm trying to drive at a reason. What is the reason that it's wrong for two sisters who are dating two brothers? We've seen two twins marry two twins. Yes. And there's nothing wrong with that. They have one big wedding and both families are merry and jolly. It's fine. Okay. Why is it Gambia wrong and if someone like okay, I can understand if Top decides to marry me and then wants to take my sister as a second wife. That's a problem. Yeah. But if Top's brother sees my sister, maybe one day Top is coming, hang on, mungenyo chasey, hang on, ana say brother, brother gets my sister, mu bugako. Understand? Guy bugante, lulu bugante la, That day am xamuloo fan la moo foolasee understand man si man I don't think that's particularly wrong Okay. because you're not sharing the same brother Wow. Right? That's your point. But let's look at it here. Okay. I'm going to put it in a hole. Ngende kasibena kirbi. You're living in the same house. Okay, maybe you're living in the same house. Marrying two brothers. Um, if an issue comes up, two sisters marrying two, two brothers. brothers. Yeah. Wow. You two sisters marrying two brothers. Okay? Um, if an issue comes up, your sisters, uh, jaha so dafa am saying digante, mbañ mun na duga, two of you can have issues, hate mun duga send beer. Lusa Lulu because you're marrying two brothers and you're living together. Can I be honest? Yeah. You know, you that, know, you in my opinion, would depend on the sisters. For me, yeah. That's what we're trying to avoid. As my sister, it would make my life easier because my sister's gonna have my back. She's not gonna compete with me because she's my sister. Whereas if I was to marry into a house where Top is there and then his brother brings a complete different stranger, that person is going to target me. That person is going to make my life more difficult. My sister is not going to do that. So I think you're actually kind of sort of strengthening my argument okay. in the sense that what, no, what, it would make that's it easier you, if that's you. But we've seen cases like that. What, I, what I want to say is it's, here. it brings confusion. In, it brings um, differences because people are acting we are in Gambia and That's how it is. No, that is no, no, why no, they feel it's it's it's not okay. Come on, Speak come for on. yourself. Don't say for the whole Gambia. Come on. My point of view is here is when you, when you're talking of love or relationship, I think there are different type of being in relationship. People have different point of view. People have different choice of being in a relationship. You choose how you want to be in a relationship. You choose, I choose how I want to be in a relationship. so <laughs> that's it. And in a nutshell, what I will just say, despite all of you arguing about what love is and then if you are to date with someone that, that people that are related and stuff like that what i want to clarify here is what is what is dating after all what is dating is dating something genuine to me, I will not entertain dating. What is dating? Top, you don't all? date. I am single. Top, you don't date. I am single. Of course, you, you date. I am a free man. Of course, you date. I don't date. Come Top on. is Top. using this opportunity you know, to advertise date, himself as a single man. Boy, you know, single guy. <laughs> Please, ladies, so don't Top go in for him. Don't. He's <laughs> actually niggas, deceiving you. Know you. Date, if you're in he Banjo, he does holler at me. I'll interview you before you get to see him. <laughs> but I no, genuinely, I'm gonna reject that. Um, if you, if I see you, someone here, then I'm we're fighting. I'm allowed. I'm not single. boy. I'm single. So okay, lady. am janxa comme soo gisee janxa boo mm. da ngaa dem rek ne ko dama laa takk. just today and you say let's go to your. suma maami ak suma <laughs> ngoro. ngoro is still dating my dear. because so, still seeing her without marrying her dem doxal i jéego yoo xamante ne mooy jéego ngoro rek yóbbu ñëw waxtaane ko xool ko bu baax dem si famille bi nuyu gars yi xam nga. di def lu war rek waaye bés boobu de. so you are dating her comme du ma def naka su dul noonu comme loolu daal. naka su dul noonu mooy lan. Ah, comme naka la ko baax day defee rek. comme ma nu ma ko dee déggee. lu tax dama ko dee déggee dama ko dee gis si whatsapp yi nii comme ni ko gars yi dee waxee. lu man moom muy loolu. yow wax ñu lu paa ko dee gis last time laa gis benn vidéo ma jaaxal ma ne lii moom naka la ko nii mun a defee comme théâtre leen ko acté rek. to bàyyi ma gis mu ne jaaxabis. to dina jaaxal mu ne ko kaay fii kooku ñëw mu ne ko ne laay wala talaay da nga ma ko loo sax mu ne ko ne ma dégg wax ne sax son soo fi rombe xoolal su ma xool bi nga dee bat bati booy <laughs> yaa ma waa dof stupide mu jaaxal ma ba ma ree sax ma kii moom jàngal lii nii man. man xaw ma lii maa jàngal lii maa xaw ma lii. mu ne ma mu ne ko mu ne la booy dama nga lii dama wala nga firi ma booy comme Youssou Ndour. wulaala. ma bëgg a suñu xool yi jaxasoo comme xoolal radio ak batterie nu mu doon jaxasoo. to maa yooyu nekkul sa lay si nga nekk di nee loolu nekkul suma wax loolu nekkul suma wax dama ko nekk di dégg si yow li nga waxee nii dafa mel ni sa sa sa waxee nga nekk comme radio ak ah. batterie nu mu ah. jaxasoo nii ma bëgg a suñu xool yi jaxasoo noonu koto boobu dama war a seen vidéo bi toog kooku dafa am line dinaa ko saag ma seen la link bi dinaa ko saag ma seen la link bi <laughs> to maa nekkul di jàng si line si yooyu ah bul dégg suma si jàng si duma ko def xanaa suma jabar xanaa suma amee jabar ma jonge fa jonge fa nii rek waaw waaw waaw foog loo bu ma saxee kawar la noonu comme bi time boo fekk maa ngi bëri kawar amuloo bëri kawar really déedéet top foogoon naa ne dinaa mun a nga top yow bàyyi I mean like Top said viewer, um, we appreciate your letter. I think the answer to your question is just like Top said, however you want to conduct your love, conduct your love that way. Mm. If you're like Antoine, a little bit on the conservative side and you think it's wrong to be married mm -hmm. in the mm-hmm. same house as your sister, don't do it. If you're a free spirit like Fatumata and you're Chukuru and Rakadu and you think that it's okay for you and your sister to be married in the same household, yeah. go for it if it makes you happy. And that's all we have for you today on the morning show. Join us again tomorrow right here in Banjo, same time, same place. Bye. Bye. Love ya.